kàddu yu mbégte ak kàddu yu taalibe di ko ñaanal bu baax yàlla dëgëral ko kattanal ko guddal fanam di ko siyaare ci turu Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moom Cheikh Ahmadou Moustapha al Karim moom Cheikhul Khadim waaye soxna Bali soxna May mënatul bintu xaadim rasul di feeñal sunu yéene ci Cheikh Amadou Mansour ak délégation bi mu àndal tàmbale ci rakkam Serigne Cheikh yaakaar naa suñu waajur wii Serigne Babacar tudd na ko wax ci ay kàddu yu kenn mënta dolli dara Serigne bi ñoo ngi leen di ziar bu baax di nuy Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne doomam la ànd ak moom di nuyu al al imam Cheikh Mouhamadul Guèye léegi rek la Serigne Cheikh Abdoul Ahad di seede taxawaay bi mu def ci parcelle bi mu def ci lislaam bi mu def ci yoonu murit dama mas di def benn documentaire ci moom ñu toog ma koy laaj ci jaar-jaaram fii ci daara ji mu ne ma li ma ci gën a marqué mooy ni ma fexe ba jumaa am parcelle loolu daal moom ma ci gën a marqué ci sama jaar-jaar ndax bu la nettalee li ko lim ko jaraloon ba jumaa taxaw fi ñu ndaw ñi daañu góorgóorlu bu baax ci lu baax taxaw ndax da cee daj lu ne ba ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yal na yàlla dolli ay leeram am kàddu yu mu ko ca wax yu dul kàddu rajo ba tey ji taxawaay boobu la am mu lijjanti ba itam empreinte am ci àddina mu marqué ko mooy bari na ñu ngeen gis ñuy jàngale jàngale mu gaaw ndax jamono ju ñu toll jàngale njëkkante la tubaab bi mobilise na ay dooleem ak ay forsam ak ay alalam xëpp ko ci àddina ngir détruire lislaam bu waa lislaam yéexee rek tubaab bi dana yàq lu bari moo tax li ñu war a def mooy njëkkante ak njàngale mi accéléré ko bu ñëk ba mag ñi àddina ñoru leen woon li leen ñor mooy defar nit ki tabax ko léegi nag li tax àddina am solo mooy àddina daw këpp ci kaw nit ñi kon faw nit ñi préparer àddina pour ñu préparer ko dootoo mën a yàgg ci daara yi waaye dañ lay defal accélération boo xam ne soo génnee li tubaab bi bëgg ci yow muy poson boobu bu egsee du dugg virus boobu du jàll te moom liggéey boobu la liggéey ci lislaam yàlla yàlla gën koo dëgëral kàttanal te man xam naa ko xamuk biir ne fu mu sol dàllam dem foofa lu baax rek a fa ne Cheikh Amadou Mansour ñoo ngi lay sant bu baax lii sunu waajur yu wax loolu rekk mooy la am wax nañ ko léegi ci kaw ni nga waxee ne alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh dafay wax ne dinaa maslaak ñëpp waaye sama xol day yëg ñun murit yëpp noonu la ñu yëgee mbooleem ko bokk ci Cheikh alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh bi nga dugg léegi damay remarqué ku jug ku nekk dina làmb addiyaam ñëw sukk nuyu la parce que li ñuy yëg ci Abdoul Ahad mi moom la ñuy yëg ci sa jëmm te loolu ak bokk ko waral waaye nag jikko ko waral teg ndax barki démb dañuy tegale ñaari tem di ci waxtaan benn bi mooy constitution Sénégal benn bi mooy laïcité waaye damay gis ne léegi laa ci tooñ sëñ Mamoun Diop borom xam-xam bu mag bi ma ne ko ñaari émission yoo def danañu ci tudd El Hadj Abdoul Aziz Dabakh danañ ci tudd Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ngay defaan ma parce que ñoom dañoo teel a xam méthode bi les bi tubaab yi teg ñu teer leen jóg jële ci taxam kaw ma taxaw seen taxawaay moo nekkoon fas yéene ba kenn du dox seen diggante ñoom ci seen biir fas yéene itam lu tubaab bi lal ñu lalli ko sama maam daana wax ni tubaab bu bëggee nga jënd ngooñ dalay may fas tubaab bu bëggee nga jënd ngooñ dalay may fas léegi boo yeewee fas wi dina di nga jënd ci moom ngooñ ba mu récupéré waale njëgu fas wa waaye doo ñoom loolu lañ teel a xam ci ñoom sëñ bay jaxati sax xam na fu mu ko leeral ne ku toppewul kenn du la topp ku naxewul kenn du la nax lu ñu jiwul du mën a sax ku farluwul sa lépp neen nit ki ak dundam dafa war ba du neen mooy lan moo tax ñoom ñaar fu ñu tuddee ñu njëkk taxaw affronté tubaab bi ci seen idéologie boo ci tuddee Serigne Cheikh Gaynde Fatma da nga tudd Alaaji si Aziz baax waaye Cheikh Moussa Al Karim mii maamam moom mii dafa dafa wax ne lépp lu ngor di maye ak jom dinaa ko am lépp loo xam ne jom ak ngor a koy maye man Moustapha dinaa ko am daane tubaab bi lu mu bëgg lu mu cay laaj nañ ko jox loolu ndax dañoo toll ci jënd ndax boobu tubaab bi ma yëw dara day jaay ñu dajale seeni moyen di jënd lu mu teg ñu ne dañ koy jënd na ko bind ci kayit ñu bind ko teg waaye moom juróom loolu taxoon mu sol dàllam këru diine gu nekk tey bu fekkoon ne dañuy tabaxaat fi jamono toll fu ci nekk dañu leen la Alaaji Abdou am na fa tabax bâtiment boo xam ne moo ko moom te loolu sol dàllam dox jàmm moo ko waral bam nuy wax ne nan ñu bàyyeeg suñuy wala laa lii na ndax fu nu yegg tey moo ñu fa yeggale lu tax ñu may laaj fu ma seeti lu ma wuti woon tubaam mbaa Njaareem ndax dama leen laaj ñoom lu ñuy dox yooyu ay responsabilité la ay masuuliya lu mu doon jël la pour wane ne man li ma yor or la jamaa la duma leen ko wanteer loolu moo waral tey li alaaj Babacar fu ngeen taxaw seen àddina dangeen xam ne nit ñi ëmbal nañ leen cofeel ndax seen waajur wa moo liggéey ci nit ñi lu jiitu àddina di toll fii mu toll dama mës di waxtaan ak jamono bi muy door a dugg ci politique Cheikh Abdoul Ahad mii ma ñëw ñeewante ko loolu ñuy waxtaan ma ne ko sëñ bi politique gu Sénégal ak ni mu mel ak coow yeeg wax yi mu jékki-jékki ne ma waaye sëñ Cheikh Issa Baye barke sëñ Touba daf maa frappé ndax dama ne kii kon xam na comprendre na affaire bi beneen bi ci topp mu ne ma duma ragal te lislaam continuté la te war nañ fexe ba la mag li fi mag ñi bàyyi woon waruñu koo yéem waaye duñ ko war a àggale looloo ko may tey muy député di ministre tey su ma gisee lu ma naqari duma ko kaas ci télé duma ko kaas moom laay woo ne ko sëñ bi war ngaa président nanga ak nanga ak nangam mu ne ma suñu ma yeggee dina ko dégg loolu su amul woon loolu du ko fa mën a yeggale te moo ne amoon nañ ixtilaaf wuute gu bari tey looloo ko may responsabilité wu su duggee aslem ku assemblée ku ko nuyu ne ko mbàkke mbaa bu duggee présidence ku ko nuyu ne ko mbàkke jox ko war ma suñ fa nekkul ñoom dara du baax bis toog nañu itam di waxtaan waxtaan wu xóot mu ne ma man lu ne ci man soxna maa ko def ci man damaa jóge ca daara ja Canada jànge wàcc dem ca tool ya daar waxaab di attaayal soxna si lakk mu ñëw mu ne ko fii li fiy mayee mooy ak taalibe te boobu mi climat Sénégal sax miinu ma ko waaye bi ñu ko préparé loolu ba tey Cheikh Abdou dafa jël yitteem yëpp ak engagement yëpp def ko ci yoon murid des fois mu génn ay xalaat fan yi dañu créé benn kuréel boo xam ne fii lañ ko créé ci kër gi mu yóbbu ñu ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ngir ñu am lu ñu liggéey ci yoon wi laata ñuy wax sëñ Mountakha dafa wax ne moom de lu mu bokk sama xel dal na ci ndax xam naa ne lu mu xalaat yoon wee ko ci ñor ba tey ji mu yëkkatiwul kàddoom wax daf ne yéenay waxal seen bopp ndax damay bañ ñu jàpp ne maa ko tabax maa ko créé maa koy doxal yéen maa ko xalaat waaye yéen doxal leen ko loolu mooy continuité sëriñ bi nag li nga def li ñu ci dàqal mooy lim ma wax biig mooy bu fekkoon ne dafay ganale ganam kër gi tey ku fi ñëw kenn du fi xaj waaye ganaliwul gan de boroom kër gi moo ñëw ci këram di xool toogaayu kër gi loolu moo waral moo njabootu kër gi kese ñu toog fekke ko su fekkoon ne gan guy ñëw la day wax ne na ngeen ma ko jëlile ca taliba na ngeen defar ay benn na ngeen def lii nangeen def lii waaye dafa xam ne sa kër nga ñëw dafa xam ne fii soo fi ñëwoon ko fi mën ngaa yéeg ci kaw ubbi appartement ba toog dox sa yitte ba mu jeex nga dem ndax da fii wutalewu ko ak Tiwaawan te yit nag fu waay mës wax ci àddina nga xebet la muy wax fuñ gisee kàddu ko bokk ci njabootu Alaaji Abdu Si Dabaax sa xel day dal ndax da nga xam ne lii ngay déglu lu baax lay doon lu rafet lay doon lu boole ba keroog kàddu ngay jeex ak fu mu mën a doon nag moo xam ci wéetaay moo xam ci wéetul rawatina nag sa jëmm rawatina nag sa jëmm amul fenn fenn fenn du ci internet du ci télévision foo gis ku bokk ci alaaji Abdou Aziz di wax mën na la waat ci yàlla ne balaa kàddu gaa jeex lu boole lay doon lu rafet lay doon lu boole ak bokk rek lay doon kon nag si yàlla na leen yàlla gën a yàggal gën leen a wër ñu bëgg na nga ñaanal leen ngeen ñaanaloon ko ndax moom danoo am ci moom yaakaar te yaakaar jiñ am ci moom wéetuwul weesuwul moom dafa xam yóbbu tey lii sëñ Babacar wax ne fu soxna may mës a dëkk tey def na ko jàkk loolu continuité la ndax xam na li fi soxna si bàyyi daf may faral di wax ne télévision boo ma seen may wax daa fekk laytul xadar jub si ndax man sama yitte mooy laytul xadar na ko soxna si fonke woon rek laa koy fonke mais bu jàllee dootoo ma gisaat ci fenn te loolu yaakaar naa ñi fi nekk ñëpp mën nañu koo seede màggalu Tuubaa sax bu jotee ñun ñoo koy forcé ci dangay ngay wax waaye day wax ne képp koo xam donte maa yor communication organisation màggal gi képp koo xam ne am na xam-xam bu mu mën a génnee ci luy doxal liggéey bi bàyyi leen ko mu dem ci télévision bi kon nag lii nga def si ñun ñëpp nga ko defal yàlla yàlla gën laa kàttanal gën a guddal saw fan may la nga yeggale taalibe yii nag nga fekk ci biir kër gi ñooy dundal daara ji ñoo fiy ñëw moo xam gàmm la moo xam événement bu mu mën a doon fii la ñuy nekk ci kër gi comme ni ko sëriñ ba waxee ñu di ko dundal kër gi kon léegi bi njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick di yëkkatee ñëpp a ànd di ko riim ci suuf ku ne di yëg li ngay yëg waaye bi ngay ñëwit laataa ngay wàcc la sëriñ bi wax ne nañ kuréel xasida moom lañ gàttoo bi ngay yëg ci kaw ndax li sëriñ Touba gàcc ci mbindam mii nga xam ne dafa wax ne lu ma am tagg yonent bee ma ko may matxu rabbi wa matxu xayra musallin xaadali jumlatal muna wa bimtidaaxika arju hahuna wa gadan fawsan wa ribxan wa ridwaanan yu xaribu nii lu ma am rek ci tàgg yonent bi laa ko jëlee lu muy ñoddi ak lu muy xëcc nee na yonent bi bu leen jàpp ne am naa lenn am na sax fu mu waxee ne yow yàlla yaa ma may ci tàgg gi may tagg yonent bi ma mën a jañ mën a lor te ci lépp ci tàggam laa ko amee kon nag moom la sëriñ bi wax ne nañ la ko teer teertoo bi ngay yéeg booba ñu ngi jàng xaside yi te jàpp naa ne teraanga yooyu lu la neex la bi ñu duggee léegi ci jàkk ji nga julli bi nga kàbbaree rek sama xel daal dal di dem ci alaaji Abdou Aziz Dabaax keroog bi mu ñëwee gane si Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke mag euh, mbokkam la loola moo tax bi nga dugg see sëriñ bi ne la wan la ne rek fii sa kër la kon nag Mbacke euh, si juumuma ngeen ñaanal ko yàlla may yeggale liggéeyam ku am gëm-gëm ci li muy def la barke Xaadimu Mustafaa ku nangul nit itam ay idéem la Cheikh lépp loo ko wax da ngeen toog ngeen waxtaan ci ba juboo te loolu yaakaar naa ni Cheikh Mustafaa maamam ji jàngale na ko mooy bu ma juumee mbooloo juum la tax ma ko daan wax mooy ku ne lay laaj xalaat ñëpp wax mu dajale xalaat yi teg kon nag wasaawiruhum fil am du jeex kon nag Mbacke ñu nit bëgg nañ ci dox gi yenn saa yi dama koy séen ci cérémonie Tivaouane ma ne ko dellu ko ci say bokk de boo nekk ci seen biir ni ngay nuroog ñoom te loolu lépp ak baax ko waral daf may wax ne ma foo ma séen ma sol sama dàll dem bokk gi laay dox ak di ko rafetal te noonu la ci doyewoo itam Cheikh Sidi Mokhtar te it musul def lenn te amu ci ndigal moom musu du def lenn loo xam ne ni loola demul ba ci ay kilifaam mu laaj leen kon nag yàlla na la yàlla gën a yàggal ndax sunu sax nga dañuy bàyyee kàddu gu Cheikh Ahmadou Mamoun Diop muy kenn ci kër gi moom itam di boroom xam-xam di ko mën a yaatal liggéey bi ah, lii sëñ baabakar wax ci bokk rek doyoon na sëkk tax moom jàpp naa ne ku ko gën a xam bokk gi diggante Jolof ak Tivaouane ak tuubaa ak Mbusoo bi yaakaar naa bëriwul dama koy wax ne ko yaay grand historien bi ndax moom li muy waxee li ñu toll nag jamono ji ñu toll mooy képp kuy wax lu baax te xam la muy wax kooku daa war a wax jàpp naa ne sa waajur bu baaxoo daana wax ni xam ne wër ta wax war nañoo dajale li ñu am yépp jox ko ndax mu noppi fuñ gis ko war a waxit war nañoo dajale li ñu am yépp jox ko ndax mu wax jamono ji la dafa mel ni sens contraire bi mooy li am ndax am na ci ñooñ suñu waxee rek nga taf sa gémmiñ problème nag du am waaye solution moo war a am nit ñi nag dañoo préféré di wax problème mais duñ wax solution la daloon bukki ci bi waaj a di wax ci pénc mi di wax am na nag wu dee bukki daa xëy topp waa ji suba ba ngoon rek waa ji naan am na nag wu dee mu ne ko ab daaj boo gis dayam daanu da ngay wax ne fii la nag wa dee parce que man nag wi dee intéressé wu ma fan nag wa dee moo ma intéressé waaw ab daaj dayam daanu da ngay wax ne fii la dee ñu dem mooy solution bi moo gën a gaaw kon noo ngi jégalu bu baax bàyyee kàddu gi sëñ Mamoune asalaamaaleykum wa rahmatulah.